li ci yéeni kay yegsi nañ ci bu nees ki se lay doon ñu dalal jaamu séeréer bi Seydina Omar Ba ñu ngi lay nuyu kilifa gi naka suba si alhamdulilah naka yi tey ak yu tey sant alhamdulilah alhamdulilah yàlla barke lépp naka suba si ça va ñu ngi fi rek waay alhamdulilah jërëjëf kilifa gi jërëjëf lu ñu mun a taataan ci Walf Quotidien tey yéen a kaay gii di Walf Quotidien Abdoulaye dafa xëyee amul ab taxaw seetlu jëmale ko ci rapport maanaam jokkalante gi nga xam dox la ci diggante Pastef ak Benno yéen kaay gi ne neexul bu neex waaye Paa Khalifa Sall jamono ji ndànk-ndànk lay doxee ndax dafay bañ daanu ci kàmb gi yéen kaay gi ci loolu xëy fësal xëy nag ko ci juno gi nga xam ne dox na ci diggante Ousmane ak ki nga xam moo mooy mooy soin palliatif te mooy ñi nga xam daanaka gis nañ ne euh, seen jàngoro daanaka euh, amatuñu yaakaar pour mu wër mm-hmm. waaye faw ala ñu taxawu leen mm-hmm. ñooñu nag ci biir hôpitaux yi ña nga ciy dund ay jafe-jafe yoo xam ne foog na tarak weesu na fa noonu la ko yéen kaay gi xëy fësalee Euh, boo demee ci kaso yi ci liberté 6 ñi nga xam ay jigéen lañu te ñu tëj leen fa euh, ñi ngay fësal jafe-jafe yi nga xam lu ñuy dund jamono ji ci biir kaso yi lée euh, nit doof teg na juróom benn weer juróom-ñetti weer kaso match amical Sénégal Cameroun Sénégal kon mujj naa daan Cameroun lu ci toll ak benn bal ci dara noonu la ko yéene kaay gi di Walf Quotidien xëy fësal Abdoulaye Seydina Omar Ba turbine lam ñu jukkil la turbine dafa xëyee dellusiwaat ci renouvellement mu soxal bureau assemblée nationale Khalifa Sall ak Yewwi yéen kaay gi ne tey coow li yëpp nag mooy war gi jàpp ne Ousmane kii di Khalifa Sall da ko war kii di Ousmane Sonko loolu mu waral coow noonu la ko yéen kaay gi xëy fësalee yéen kaay gi ne Bougane Gueye Dany jamono ji sol na ay dàllam fas euh, si di euh, Momy Seck yéen kaay gi nag ne moom Bougane Gueye Dany la sol na dàllam kon fas yéene euh, soobu ci xeex bi noonu la ko yéen gi di tribune xëy fësalee ministère chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains yéen kaay gi dafa xëy samp bëgg a xam waa ministère boobu moom lan lu mu noonu la ko yéen gi tribune xëy fësale na tournée mu ngi ko tàmbali nag fii ci diwaanu Dakar noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale moom Amadou Ba nag jot naa dajek ay kilifa diine ba ci ay chef coutumier noonu la ko yéen gi xëy fësale ñoom nag ñëpp ñaanal lañ ko te dégg nañ noonu la ko yéen a kaay gii di direct news xëy fësale Abdoulaye yéen a kaay geneen Dakar Times yéen a kaay gii moom Amadou Ba mu ngi woon fii ci jot naa dajeeg Abdoulaye Abdoulaye Makhtar Diop grand serigne dajeeg Pape Ibrahima Diagne grand serigne jot naa dajeeg imam Moussa Sam mi grand imam ratib bu grande mosquée jot naa dajeeg cardinal Théodore Adrien Sarr moom Amadou Ba nag nee nañ ni ki tey ji ba nga fas yéene utali fu ci mel ni Saint-Louis Richard Toll ak euh, fële ci diwaanu Fouta fas yéene daje kilifa diina ya fa noonu la ko yéen kaay gi Dakar Times xëy fësale yéen kaay bi di révélation révélation moom ma nga woon fële ci diwaanu Thiès yëkkati na ay kàddu xam ne ne bu yàlla defee mu jotee ci bopp réew bi bokk na ci des muy njëkk jël mooy fexe Euh, ba jëlee fi accord de pêche fi ndax gis na ne Sénégal yi jamono ji ñu ngi dund ay jafe-jafe ngir am jën te nag wax dëgg askanam moo ko gën a ay milliards yoo xam ne nii daanaka tubaab yi ñu ngi ko jël di ko dugal ci keesu nguur gi noonu la ko yéen a kaay gii di révélation xëy fësali Abdoulaye euh, fës na ci le peuple yéen a gii di le peuple xëy dalal Mamadou Mamadou Lamine Diallo Mamadou Lamine Diallo ne bu yàlla defee mu doon président de la République dana bokk ci décision yi muy njëkk a jël mooy fexe ba président bi fi nekk di koy topp ci yoon noonu la ko yéen gi xëy fësale na nag programme bi nga xam ne yoon yoon ci kaw yoon yoon yokkute yéen kaay yi di la peuple kon ci loolu la xëy la waaye tamit nit lu ko am xam jaar-jaar ci wàllu koom-koom yéen kaay gi ne ndax soxna si euh, mënta jur betteel ci élection yi noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale ak lu ci mënta am rek jamono ji ma ngay wër parrainage fu nekk ma nga fay teg tànk yéen kaay gi la sor te ji dañu xam ne ak soxna sosule yéen kaay bi di 24 yéen kaay gi di 24 na parrainage bi de ñi nga xam ne ay parti la ñu wala ay coalition parti yu mag dañ nekk ci biir réew mi tàmbali nañu gàllankoor candidat yu ndaw yi noonu la ko yéene kaay gi xëy fësale ndax am na ci ay coalition yoo xam ne ni am nañu ay député am nañu ay maire waaye dañ jël décision wax ne ñoom dañuy sóobu ci parrainage bi lee loolu nag bu ñu ko ci mel ni Pape Djibril Fall dañ jàpp ab sabotage la te lañ ci jub rek mooy fexe fexe ba ñoom du ñu mën a bokk ci élection yi lée euh, Abdourahmane Diouf aussi wax na ci lépp kon mu ci yéene kaay gii di 24 heures Abdoulaye euh, nga xam ne maanaam décision xam ne ni juge Euh, dal di annulé inscription liste euh, maanaam euh, Ousmane Sonko bi nga xam ne dañoo ko ràjji si liste électorale yi lee xëy nag daal ci amoon a taxaw seetlu jël kàddu gi jox ko Jibril Ñing ak ki nga xam ne moom moo di Njaga Silla ñoom ñaar ñëpp ay expert lañu si wàllu élection kenn ku ne di joxe ne ci xalaatam waaye ñoom ñëpp daal daanaka dañuy jox dëgg juge bi noonu la ko yéene kaay giir dafa xëyee dellusiwaat ci maanaam di juge bi décision mi ngi jël wax ne euh, problème mu contumace moom moo tax ñu dellusiwaat Ousmane Sonko ci la nga xamoon ay droit am mhm. waaye yéen gi dafa jàpp ne juge bi na ko eh, mhm. euh, bu mhm. euh, match xarit waaye yéen gi di lankeet jongante xarit la woon doxoon ci diggante Sénégal ak Cameroun waaye Sénégal mujj naa daan Cameroun lu toll ak benn ball ci dara mu nekk nag marché boo xam dafa wane ne suñu gaynde ba fa ñu nekkoon ba tey jóguñu fa noonu la ko yéen kaay di l'enquête xëy fësal Abdoulaye yéen xam nga Cameroun ak na ko démb ci diggante ma Cameroun wane na seen xel daal mën naa dal ci coupe d'Afrique des nations bi di ñëw noonu la ko yéen kaay gii di stade xëy fësal suñu lamb ko mu géewal wax ci combat gi war a dox ci diggante Modou Lô ak Ama Baldé am Modou ma ngi ay xam ne ne la mu bëgg ci Ama Baldé mooy mu prêt à 100 pour cent parce que bu koy daan bëgg na daal bu koy daan mu xam ne ne Ama Baldé bu prêt la daan waaye daal li wër wër mooy xam ne ne Ama Baldé xam ne kuy Modou Lo euh, te euh, combat bi dox seen diggante moom dana ko woon kay mooy Modou Lo waaye da Abdou Bakhoum mi nga xam ne manager Ama Baldé yëkkati na kàddam ba ci kaw ko ci suuf noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale beneen combat nag war a dox ci diggante Tapha ak Eumeu Sène ñoom nag mhm. jàkkaarloo nañu kenn ku ne wax na Tapha Tine jàkkaarloo na ak Eumeu Sène xamal ko ne ko dinaa la duuma dinaa la daan Eumeu seen xamal ko ne ko maa la mën maa la ëpp doole. Mhm. mu nekk nag combat yoo xam ne ni ñaari combat yu neex la ñu war koy jouer incha allah bi ci weer wi di ñëw incha allah. man ko seen jokkalante kàddu bokk na ci sax liy neexal lamb laata ñu leen di géewal. mooy sàmm lamb. waaw eh, yenn saa yi ñu ñu ñu weccoo ay kaddu. moom la neex rek. waaw kenn ku ne dëkku sa. kenn ku ne jaay sa waaw jaay sa combat. da ci am solo. Mhm.